هق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات هق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في خابوا بالحلاوات sunu mbokk yu tedd yi ñuy déglu te dañuy seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ngeen jàkkaarloo ak ñun ci jamono bii ci pàkk bu sell bi jàkkaarloo ak sang bu sell bi Serigne falilu Mbacké moom Cheikh Mourtada Mbacké xaadimu rasul mu feggoo ak mboolem njabootuk Serigne Mourtada Mbacké gépp ngeen jàkkaarloo ak Serigne Abdoul Mouhaymin Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Mourtada Serigne Salihu Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Mourtada sëriñ Sidi Mouhamed Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ak sëriñ Jili Mboro moom Cheikh Mouhamadul Mourtada waaye ak sëriñ Khalil Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada jàkkaarloo ak soxna maam Ami Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada mu teewal fi mboolem njabootuk Cheikh Mourtada Mbakke gépp jàkkaarloo ak magi taalibe yi seen xel dalaw a dem ci bis bu mag bis bu sell bis bi nga xamee ni ci Cheikh Mourtada Mbakke xaadima rasul moo ko wootee lan boppam muy bisub Serigne Mamor Anta Sali Mbakke bis boobu nag di ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Touba Serigne Mountakha Mbakke xalifa général kullu murit mi ñëpp di ñaanal fan wu gudd lool wu ànd ak wér yaram jaar ci Serigne Mamor Mbakke moom Cheikh Mourtada Mbakke xaadimu rasul ñëw nag ci Serigne Falilou Mbakke moom Cheikh Mourtada Mbakke xaadimu rasul mu war a doon gaawu ñetti fan ci weeru février 2024. di bis bi Cheikh Mourtala Mbacke woote leen boppam ca deqalee di bu mu daan fàttaliku ak a ñaanal Serigne Mamour Anta Sali Mbacke fali lu Mbacke di ko yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn mboolem buddu kër njabootu Xaadimu Rasuul mboolem buddu kër njabootu Serigne Mamour Anta Sali Mbacke ñoom ñëpp ma ngi leen ko yëgal xam ngeen ne nag ku wax deqale tudd Serigne Mamour Anta Sali faw nga tudd maam Anta Ndiaye ba tax na Serigne Falilou Mbacke ma ngi ko yëgal mboolem njabootu soxna maam Anta Ndiaye gépp bàyyiwul kenn looloo waral ñu teew fii tey fas yéene yëkkati kàddu yi woote ak soññee jëmale ko ci bis bi danañ jëkk a jébbal kàddu gi sëriñ al imam ñang moom sëriñ Modou Mamoun ñang mu fàttali ñu ñaan ñi nga xamee ni moom la Cheikh Mourtada Mbacke xaadima rasul joxe woon ci bis bi bu ñu àggalee jébbal kàddu gi sëriñ Abdoulahad Mbacke mi fi teewal sëriñ Moustapha Abdoul karam teewal fi mboolem njabootu soxna maam Anta Ndiaye Mbacke gépp bu ñu àggalee jébbal kàddu gi nag Serigne Falilou Mbakke moom Cheikh Mourtada Mbakke xaadimu rasul mu soññee ci bis bi kon ñun ñëpp ñu mancé teewlu déglu ali Serigne al imaam Ñang mu yëkkati kàddoom jëmale ko ci ñaani ci Cheikh Mourtada Mbakke xaadimu rasul joxe woon. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di ziare bu baax di teg ci ziare bi nuyoo bi nag eh, ci loxol sëñ Mouhamadou Fadal moom Cheikh Mourtada mu àggalee ñu ko ci Cheikh mu Mountakha. waaye itam ak ci njabootu Cheikh Modou Mourtada ak njabootu Cheikhul xadim gi yëpp ni ñu ko amee ndigal rek ca daa ko defee noonu ñu waajal bisu tedd bis bu màgg di màgg lu deqale gi ñu fàttaliku Maamoor Anta Sali ak ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekk foofa te Cheikh Modou Mourtada daa ko taxawal boppam daa fa ñëw di yendu di fa nekk itam ci guddi gi yëpp ngir rek di ko taxawee ngir yitteel gu mu ko yitteel bu bis ba masaana ñëw nag euh, la nga xam ne moo daa jiitu bis bi ca bu bi jotee itam ñu di ko yendoo di ko fanaane muy alxuraanu karim loolu moom la ñuy taxawee ba ca bis ba ñu nekk ca waaye boole ko itam ak xasida yi seexul xadim yi di ko jàng ci ci yàllu di ko jàng itam ci ci béral noonu la ñu itam ci ak ay ñaan yoo xam ne Cheikh Mamadou Moutara daana ko joxe ngir bëgg ñu di ko taxawee ca bis ba muy euh, wax al istighfar muy astaghfirullah lu toll ci juróom-ñaar fukki yoon muy 70 waaye te ayetu kursi yi ba mu jeex 3100 muy ñetti junni ak téeméer jàng itam suratul ixlaas muy xul wallaahu ahad ba mu jeex lu tolloog ci 6200 muy juróom-benni junni ak ñaar téeméer waaye itam tëje ko salaatu ala nabi lu tolloog ci 12400 muy fukki junni ñaar ak ñeent téeméer loolu mooy ñaan yi nga xam ne Cheikh Amadou Moutara daana ko joxe ñuy ñaan nag képp koo xam ne teew nga ci bis ba nga sàlloog ñaan yooyu taxaw ci waaye ku fa teewu itam foo mën a nekk ci àdduna ci réew mi bitim réew ngay taxaw ci ñaan yooyu ndax luy mën a jariñ la ci réew mi waaye itam jëriñ ci àdduna si yëpp di fi def jàmm di fi defi tawféex waaye noonu la ñuy jàng itam xasaayid Serigne Touba yi noonu lañu demee itam ba ginnaaw timis ñu def am ndaje moo xam ne sëriñ bi dana génn feggoog mbokk yi feggoog kilifa yi ak gan ñi ñu yëkkati ay kàddu yi sant waaye kàddu yi itam dénkaane nam ko daa taxawee. waaye noonu la ñuy fanaanee itam jàng xasida yi Cheikhul Khadim yi ci njiital sëñ Abdoul Ahad Diouf waaye tam mboolem jàngkati xasida itam ñu ngi leen fay woo ni ñu ko daa taxawee. ñu taxawee ko noonu kon mbokk yi lii rek lañ ci doon andi muy màggalu Ndexale nañ ko daa waxee rek woote bi yàlla la kon jaamu yàlla bu fa teew ngir yàlla ngir góor yàlla it gi ko daa woote boo dikkee fekk fa yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ci ndigalul sama kilifa gi ma fi yabal mi sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdoul Akram maa ngi yëkkatu sama kàddu ci turam nee na mi ngi yëkkati nuyoo bu sell bu mag di ko teg ci loxol Serigne Mamor Mbacke mi nga xam ne mooy njiitul kër Cheikh Mouhamadul Mourtada di soppeem di wëllëreem di xaritam di mbokkam di léppam nee na mi ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal ab yàgg te suñu borom woyofal yan bi ci kawam di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxol Cheikh Mouhamadul Fadil mii toog di ko sant bu baax di ko gërëm. teg bi ci loxoom mu jàllaleel ko ko ci mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Mourtada di leen sant di leen gërëm di fàttali seen kóllëre ak moom ak seenu bokk. ginnaaw loolu ma ñëw ci bi li nga xam ne moo ñu fi dajale muy bis bu màgg bis bu tedd di bisu màggalu deqale nga xam ne almujahidul akbar ak Cheikh Mouhamadunil Mourtada radiyallahu anhu moo ko taxawaloon ngir di ci fàttaliku ak di ci ñaanal maamam yu baax ya nga xam ne ñoo fa toog ñoo fa tëdd. doon ko def ci ak nekkam li ci taxaw taxawaay bu mat sëkk li ci woo bokk ya li ci woo taalibe yi li ci woo njabootu sëñ Tuubaa gépp ngir xam na dayob sëñ Mor Anta Sali bis boobee bi mu fiy jógee mu bàyyeeku doomam ju baax ji di Cheikh Mouhamadul Fadal moom itam mu taxaw ci taxawaay bu rafet kenn ku ne xam ne ne boo ñëwee deqale da nga xam ne deqale yokku na waaye bis bi itam ku fa ñëw danga xam ne bis bi yokku na yaatal na ko ba mu mat sëkk ci biir yaatal googu nag ci la ci wooyee sëñ Moustapha mii jox ko ci cër bu mat sëkk moom itam mu neex ko lool nangu ko lool ànd ci ak moom ci lépp ci biir ak ci biti at yi yëpp at mu nekk buy jub si dafay da day yable ngir ñu ànd ak moom liggéey bi kon sëriñ bi nee na mi ngi fedd loolu bu baax di ñaan yàlla ñu àgg ci ci jàmm bis bi mi ngi tolloog la trois février mi ngi ciy woo képp koo xam ne nii daana ci jëflante ak yow ngay xaritam wala ngay mbokkam wala nga di taalibeem ñu ànd dem fa def ko ni ko sëriñ bi bëggee te daje ci ngërëmul sëriñ Tuubaa yàlla na ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullah wa kàddu yu gàtt yoo xam ne dañ ko ci war a dugal ndax bis bi ñu jublu bisu màggalu lu ñu di li ko def la 3 février ca deqale te sëriñ Fallou Mbacke ànd ak njobootu sëriñ Mourtala gépp di ko def ñu def ko ci ndigalul xalifa général di Mouride sëriñ Mountakha Mbacké ak kilifa kër sëriñ Mourtala gi di maam Mor Anta Sali ak njabootu maam sëriñ Mourtala gépp kon nag bu bis bi ñëwee nañ ko daa defee rek sëñ bi ànd ak bokki julli ak bokki taalibe yi ak kër gi ñu di ci waxtaan bu ko dee magi taalibe yi ñuy jël ci menn mag mu dugal ci kàddoom ni nit ñi ci loolu lañ ma koy joxe kàddu at mu ne léegi nag màggal gi ñëw na mooy le trois février sëñ bi ne mi ngi ciy woo ñëpp ñëpp ñi dale ci mag ak gone ak ñëpp mi ngi leen ciy woo mi ngi woo bokki yi nga xam ne ñoo yor daayira yi fub daayira mën a nekk te bokk ci daayira deqale yi na takku taxaw nañ ko daa defee rek ñu defee ko ni ko ñoom ñëpp ñu maase ñëw deqale ànd ak sëñ bi ci liggéey ba ne ko sëñ bi bëggee ñu defee ko ne bam bam bam sotti coleet di ci woon ak mboolem koo xam ne tund woo mu ngi jege deqale ak bokki deqale yi ñi nga ne ci biir dëkk ba ak ñu néew ci biir dëkk ba di mboo mboolem taalibe yi nga xam ne ñi ngi nekk ndakaaru te bokk ci deqale ak ñu nekk Italie bokk ci deqale ñoom ñëpp maa ngi yëkkati sama kàddu leen woo nañ ñëw jàppale sëñ bi ci ni mu ko bëggee ñu def ko nañ ko daa defee ba mu àgg na ko bëggee ci barke sëriñ Touba loolu loo loolu laa loolu laa ci amoon lu ma ciy wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi arrahmaani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen sant di leen gërëm te di leen yëgal ak di leen fàttali ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général kullu murit yàlla na fi yàgg te wér yeggale yàlla na ko yàlla yeggale yàlla na yegg te yeggale nu ànd ko moom ak ci kilifteefu sunu kilifa sëriñ Mamor Mbàkke xalifa Serigne Mourtada Mbacke yàlla fi yàgg te wér te di leen fàttali it bisub Serigne Maam Mor Anta Sali Mbacke bi ko baaxoo ñaanal ci Dexle Serigne Mourtada Mbacke daana ko amal ci teewaayam joxoon ma ndigal ñu koy amal at mu ne daana ma wax ne ma bis bii bis la boo xam ne bisub alquran la bisub salaatu ala nabi la bisub fàttaliku mag ñu baax ñi ba mën a roy ci seeni jikko kon nag ñoo ngi ci soññ ñëpp rawatina nag euh, taalibe Serigne Touba yi yëpp di fàttali itam ñi nga xam ne ñooy ñoo ñoom ñoom ñun ñëpp ñoo bokk bis bi Serigne Mout Serigne Moustapha Mbacké mi nga xam ne jëwriñ lañ koy wooye ci liggéey bi mu baaxoo ca taxaw ànd koog nun mu yebal Serigne Abdou Lahad mu ñëw teewe si ko bu loolu wéyee maa ngi nuyu sama bokki bopp yi nga xam ne ñoo bokk Cheikh Mouhamadou Mourtada bokk bis bi ndax ñoom it kër wax dëgg yàlla man mënuma leen a fay xanaa li may mën a def rek di leen ñaanal yàlla sunu borom boo leen jàppale boo leen ci barkeb Serigne Touba bu loolu wéyee ñu xam ne ne dégg nga maam mboolem taalibe Serigne Touba yi njabootug Cheikh Ibrahima Fall njaboorug njabootug uh, maam Mor maam maam maram ñëpp ñu ngi leen koy ñu ngi leen koy yëgal di leen ko fàttali te xam ne kat ñun kat doo nañ ci dara lu dul lañu ci sëñ ba defoon rek dañu caa defoon jëwriñ joo xam ne ji lépp lu mu ci daan jàllale dama daan toog nii di ko jàllale ci kanamam ba tax na loolu moom ñi ngi laxasaa yu ñu itam fas ko yéene ja di ci woon ak mbokk yëpp nag taalibe yeeg taalibe sëñ Tuubaa yëpp bu mënee taalibe Sëñ Tuubaa nag kenn desul kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm niñ ko waxee rek euh, Sëriñ Tuubaa moom boo ne Sëriñ tuuba lépp dugg na rawatina nag waa kër soxna maam Anta Ndiaye bi nga xam ne moom ñoo bokk yëf ak waa kër Cheikh Ibrahima Fall ak taalib yi bàyyiwuma kenn daal bis bi nag mi ngi tollook euh, ñetti fan ci février ah, doon bis boo xam ne bii itam bi réew mépp daal la maa ngi ci woon ak képp koo xam ne kii ab jullit nga ah wala taalibe nga wala mbokk nga wala xarit nga ñu ngi leen ci woo ni ko sëriñ bi daan waxee nag ni ko sëñ euh, Ilimaan Ñang mi waxee ñaan yooyee buñ ko fàttali ak alxuraan yi di soññ itam ñi nga xam ne ñoom it dañuy yëngu ci salaatu na nabi di yëngu ci alquran bis la boo xam ne bii daal sëñ bi li ma waxoon dafa am ñu ñëw ne ma euh, dañoo bëgg nga wax sëriñ bi ne ko dañ ko bëgg jàppale ci bis bi ci bernde yeeg ay euh, taxawaay bi sëriñ bi ne ma na nga leen wax ne leen loolu day lu baax la ñoo ngi leen ci sant bu baax a baax waaye nag buñ ci dugal lenn àdduna de buñ ko ci defee rek ci la noonu rek la demee kon nag ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di sant itam sunu daayira yi nga xam ne mooy Hizbut Tarqiyyah yi nga xam ne lépp lu ñu taxaw lépp lu ñu yëkkati taxaw nañ ca ci liggéey baag euh, baas yaag lépp rek di sant it sunu kilifa sëriñ Abdul Karim moom nga xam ne moom itam waxtu wu déggee yëf yi Euh, dana wax njabootam gépp ne leen jóg leen ba bërki démb moo ci mujj bi ma demee nee na leen yéen ñëpp na ngeen taxaw na ngeen ko daal taxawee mbaa ngeen taxaw nu ko nu ko raw sax kon nag moom itam ñoo ngi koy sant di ñaanal nag sunu kilifa yi nga xam ne moom ñoom lañu bokkal Serigne Touba di ko tàmbalee ci Serigne Sidi Mbacke Serigne Abo Mbacke njabootu Serigne Touba gépp daal ndax ku lim rek da nga da nga da juum mm-hmm. ñoo ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp barkab Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi moom Cheikh Mourtada Mbacké Khadim Rasoul ci kàddu yu am solo yi kon mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu dégg ngeen kàddu yi Serigne Fallou Mbacké moom Cheikh Mourtada Mbacké Khadim Rasoul yëkkati Serigne bi nag nee na ma ngi koy yëgal ñëpp bis bi ni ngeen ko xamee sëriñ bi nee na ma ngi koy yëgal bu baax mboolem njabootu borom daaru moxti gépp di ko teg ci loxob sëriñ Bachiru Anta Ñang xalifa borom daaru moxti ak mboolem njabootu borom daaru moxti gépp foo yéene ko ànd nag ak alhaaji maam Thierno Mbakke xalifa sëriñ Cheikh Awa Balla Mbakke ci daaru mën naan ni mu ko baaxoo ànde ak moom at mu jot di koy yëgal bu baax nag sëriñ Xaalit Mbakke moom borom daarul moxti at mu jot gis na taxawaay bu am solo bi muy taxaw ci bis bàyyiwul kenn ndax bis bi kët bis dafa mënta ñàkk jëwriñ waaye moom ñëpp ñoo ko bokk ma ngi ko yëgal daayira yëpp di ko yëgal bu baax nag daayira bi nga xameen si moo lëkkale mboolem turandooy Serigne Falilou Mbacké yi te at mu jot lépp lu muy dugg mu ànd ko ak ñoom ma ngi leen ko yëgal di ko yëgal daayira yi nga xamee ni bi Cheikh Mourtada Mbacké Khadimou Rassoul sosé bis bi ba léegi moog ñoom ñooy bokk bis bi doole ko ci daayira waa kër alhaaji Yand Diop moom Cheikh Mourtada Khadimou Rassoul ci njiitul Serigne Mourtada Diop moom Serigne Yand Diop te rakkam Serigne falu jóob teewal ko ci jataay bi teewal fi mboolem njabootu Serigne Yande Diop gépp te ndeke jekk noonu la ñuy àndee ak Serigne bi ci wàccaay bi ba ne bis bi jeexee Serigne bi nee na ma ngi leen ko yëgal di ko yëgal daayira Dexle ci njiitul Serigne Touba Gueye Serigne Mourtada Gueye Serigne Modou Wañaan di ko yëgal daayira Dexle bu soxna yi ci njiitul soxna Jama Gueye ak madame Diakho daayira Njàmbur ci njiitul Taala Wadd ak Aram Mbuub daayira bu Ngaay Mexe ci njiitul Allaaji Jaaja Saw ak Serigne Bay jiite maam ndaak jiite ak mboolem njabootuk rahmatullahi alayhi bay bàcci jiite gépp bàyyiwul kenn di ko yëgal daaira Thiès ci njiitul waa kër Allaaji Cheikh Gay di ko yëgal daaira Miftaaxul Muna ci njiitul Serigne Murtada Diagne Serigne Pape Saw Serigne Ahmadou Thioub daaira Miftaaxul Muna bu jigéen ñi ci njiitul soxna Ami Wadd ak soxna Xaar Thiam soxna Bintu Fall Baara soxna Maam Sey Ndiour ak soxna Mbiri Diouf daaira si njiitul Serigne Moussa Fall Serigne Modou Kassé ci wàllu soxna yi soxna Fari Diop soxna Ndey Si daayira Thiès Cheikh Serigne Cheikh Mbay Seck ak mboolem ñi muy àndal liggéey bi daayira bu dakaar aji Ndey Ndaw ak mboolem ñi muy àndal liggéey bi daayira Dakar soxna Fat Cissé soxna Lum ak mboolem ñi nga xamante ni ñoom lay àndal liggéey bi daayira waañu soxna Boussa Fall si njiitul soxna Binta Dia soxna Aram Diaw soxna Khady Guèye Serigne Mbaye Guèye daaira daarul mannaan ci njiitul Njabas Ndiaye ak Ndey Wañaan daairatu salaatu ala nabi si njiitul Serigne aboo Ndiaye ak mboolem ñi mi àndal liggéey bi yépp daairatu Mbora si njiitul Serigne Makk Ngom ak Serigne mbay daa daaira waagu ñaay si njiitul Serigne Bada Aan ak mboolem ñi mi àndal liggéey bi daa daaira nuuru daareyni ci njiitul Serigne Ndaam Guèye ak sëriñ Wañaan Serigne Cheikh Guèye daaira kulli daa daayira Kolle Ndiaye ci ca Mbacke Bawal ak mboolem ñi muy àndal liggéey bi daa daayira sëti sëriñ Modou Moustapha Fall ci njiitul bu Chouaibou Fall daayira Deqale gu ndaw ci njiitul sëriñ Mourtada Guèye mu ndaw sëriñ Thierno Wañaan ak sëriñ Kara Guèye mu ndaw daa daayira euh, dongay tarbiye yi ci njiitul sëriñ Pape suur ak mboolem ñi muy àndal ñëpp daayiratu mu nawwiru sudur ci njiitul sëriñ Cheikh Touré sëriñ Khadim Kan soxna Aba Silla Basin ak soxna Fat Diaw ñoom ñëpp sëriñ bi ma ngi leen koy yëgal daaira soppe cheikh mouhamadul mourtada si njiitul sëriñ góor a ak soxna sall di ci woo nag mboolem daare alquran yëpp rawatina waa Fass Touré daaru mannaan Mbacke Kajoor waa kër sëriñ musta sill ak waa kër sëriñ mañaaw kokki daqaar kokki kadd kër mandumbe kër matar fetto daaru Diop. daaru moxti ak bépp dëkk boo xaman si yaa ngi aju si daaru moxti bàyyiwul kenn di ko yëgal nag soxna Anta Sare ak mboolem njabootu sëriñ Moustapha Kase gépp soxna Ami Jonn ak mboolem njabootam gépp daayira subulu salaam bu Dakar si njiitul Yaasin Ndiaye ak njabootuk Serigne Mortala Fall gu Thiès gépp bàyyiwu ci kenn mboolem waa Cilmaxa gépp sëñ baa ngi leen ko yëgal di ko teg ci loxob Serigne Moodu Gorel Jaxate di ko yëgal nag waa kër El Hadji Abdoulaye Guèye ci njiitul Serigne Moodu Guèye ak kabbu waa daayira matlabu shifa yi géejawaay ci njiitul soxna Mariama Kan daayiratu xisnul abrar ci njiitul soxna maam Mariam Mbakke mu ndaw ak sëriñ Arma si sa Thiès kuréelu Sarsara ci njiitul sëriñ Basiru Amar ko yëgalatem waa daayira soxna Fat Ndiaye maam Jaara nee naa ma ngi koy yëgal waa daayira ansaaru diin al islaami yi bi incité al azhar ginnaaw bu mu leen santee ci taxawaay yi nga xamee ni si at mu jot dañ koy ànd ak ñoom ci bis bi di ko yëgal waa daayira miftaaxul muna bu waa kër cheikh mouhamadul mourtada ñoom itam at mu jot ñu ànd ak moom bis bi ba mu mat sëkk wax na ko léegi di ko yëgal mboolem waa fédération makarimul axlaq bu sëriñ abdul karim mbàkke makarimul axlaq di ko yëgal seen fédération ahlu café soxna maam isa nee na ma ngi koy yëgal mboolem organe de yëpp di ko yëgal waa ICAP muy rajab bu sëriñ Mamor Mbacke moom Cheikh daa di ko yégal mboolem waa almurid yeeg yëpp di leen sant ci taxawaay yi nga xam ne si moom la ñu baaxoo ànd ak moom si njëlbéen gi ba ci bis bi di ko teg si loxob sëriñ Youssou Diop mi nga xamee ni si mooy jiwriñ bi tey ñaan yàlla woyofal liggéey bi ci boppam ba mu bëgg ba man ko àggale fa mu bëgg di ko yëgal itam sëriñ Alioune